bi ngeen ñëwee tey jii nii fekk fii agent municipaux yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey fii ci commune Kër Massar mu am benn euh, ay fait yu fi xaw ci euh, le dimanche 26 ay nit yu ñuy waxee ay marchands ambulants ànd ak ay voyous bravé li nga xam ne ni moom mooy interdiction yi nga xam ni autorité administrative bi mooy préfet bi jëloon na ko pour wax na ci rond point Kër Massar ak 500 mètres ci wàllu bu nekk bu fa kenn def benn activité commerciale maire bi aussi jël arrêté.

lak ay document administratif yoo xam ne nii commune bi ñoo ko moom maire bi moomu ko agent yi moomu ko société bi ñoo ko moom donc loolu agent municipaux yi yëpp nag nga xam ne ñun fii la ñuy liggéey suñu sécurité fii la nekk suñ ko defee nii dañuy am njàqare ak tiitaange boo xam ne dafa ñu suba dañ fi mën a ñëw pour liggéey si moom moo tax ñuy woo état bi di ko wax ne ko institution de la république bi nga xam ne nii maire yi la muy hôtel de ville ak fu mu mën a nekk ci Sénégal nga xam ne ay démembrement état la ñoom dañu am responsabilité pour sécuriser ko

loolu nak état moom moo ci wara a parce que état moom mo yoré souveraineté bobu rôle sécurité état moko yoré donc ñuy demander l'état and ci ak ñi nga xam ne ñëpp ay bonne volonté lañu ay ay xalat yu rafet lañu am and ci ak maire and ci ak conseil municipal bi and ci ak AMS pour wax ne que ñun ñëpp ngi ñaawlu affaire bobu di taxaw pour demander état bu ñew taxaw ñu jàppale ñu pour que suñu institution bi ñu sécuriser ko pour que aussi travailler ñu sécuriser leen parce que ils sont tout le temps sur le terrain et ils ont reçu des menaces te dañuy dem ci terrain bi pour def des recouvrements ay recouvrements yi xaalis la ñuy jël xaalis boobu moom mooy permettre maire bi mu def ay liggéey xaalis boobu nag suñ ko mënul def ci terrain bi parce que ils ont été violentés bu boobaa commune bi dafay nekk en déficit te bu boobaa travail bi dootul am solo parce que soo mënta andi dara ci biir commune bi pour mën a fayeku dootoo fayeku bu boobaa le travail n'est plus sécurisé donc ñuy demande état vraiment en ce qui le concerne mu dis toutes ces mesures nous avons que le ministre de l'aménagement du territoire nous na fi donne ñu mettitlu li nga xam dans dal nañu bi mu aussi constaté l'état de délabrement euh, bâtiment bi dafa wax les services de l'agent pour que nous ñu dans les délais les plus rapides pour que nous xool la réhabilité li nga local pour que nous puissions a dellu de parce que tey jii boo gisee bureau yi fii dañ ko condamné que mënu fa kenn mënu fi dugg parce que wóorul bâtiment bi ñu taxaw di wax ak yéen ñi dafa lakk-lakk boo xam ne nii wóorul amul benn expert bu ñëw wax nañu ne degré de dégradation bi fii la toll ba nga xam ne tey jii ci sa tànk su fi amee naqar xëy na wala mu am ci safaan doo dañuy wax ne sa responsabilité entière la parce que déjà da nga gis benn bâtiment bu yàqu nga dugg fa donc kon vraiment ñu ngi ñaan autorités yi ñun ñëpp ñi si ànd en tout cas ñun agent yi lii suñu outil de travail la te ñu permettre ak ay nit parce que soi-disant ay commerçants, lañu parce que soi-disant dañuy dans seen doole ñu ñëw ñun di yàq suñu outil de travail ñun fii la am fii la suñuy teranga nekk ñun nekkuñu fii pour ma Samba ak ma Demba dañ fi nekk pour l'administration du Sénégal l'administration bi moo ñu fi teg ñu jàppale askan bi ci li nga xam ne lañu fi tegee donc loolu moom mooy tax tey jii nii ñun ñu taxaw ñun ñëpp nekk benn bloc nek ben homme pour défendre suñu institution bi nga xam ne moom la yore donc lii moom moo doon li nga xam ne moom la ñëw na ñu woo leen waxtaanteeg yow partagé ak yoon lépp loo xam ne ay information yoo xam ne la Ah, samay collègues ñoo fi nekk ay directeur comme man yoo xam ne incha allah buñ ci boree wax dinañ ci sànni seen kàddu ñu ngi leen di remercier wasalaam